ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له أيها المستمعون الأوفياء أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sa pays am di jàmm yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo aljuma bu ne ci waxtu wi lay seen rajo Safina FM di leen nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla di leen ndokkeel ci bés bi di leen ñaanal yàlla tawfiix ci fan yi ñu mël muy weeru tabaski yal nañ ci yàlla eggaleex jàmm ujaaj ji yal na yàlla yóbbu leen ci jàmm delloose leen ci jàmm waaye nangul leen lépp lu ñu fa def ci lu baax yàlla fulal leen ko muy xajjan mabruuran yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal ñu ñëw fekk ñu ci jàmm it ba lépp lu ñu ñaanal àdduna bi yàlla def ko jàmm sutura tawfiix waaye may ñu ijaaba di ñaanal fadilatu cheikh jarna hamidu di kon ndokkeel ñu mu nekkal layl haram ñom ñep ñi fi jëgé dem ñep ñu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal yalla tawfiihul ilahi di nuyu a sayda ñuma di ko ñaanal yalla momit sutura tawfih di ko ñaanal personnel bi yëpp yàlla dolli ko sutura bu baax yalla taxawuko bi jaahi rasul sallallahu alayhi wa sallam di nuyu Seydi Gange moom it di ko ñaanal tawfiix di nuyu suñu wayjo alxaajaku Madiaani Sarr di ko ñaanal tawfiixil ilaahi yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot gi yàggal ñu gunge lu bare bare bare incha allah suñu yaay fi ne Adja Maymuna Diouf Adja Nogay Fall ñu ngi leen di nuyu bu baax ñoom it macha allah. di leen ñaanal tawfiix si seen ñaan yi yeex seen ziyaaraat yi yal na yàlla defal tawfiix ñoom it ay mag lan yoo xamante ne jaboote nañ dëgg yàlla ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm yàlla leen yàlla defal jàmm yàlla leen yàlla dolli sutura bu baax a baax a baax a baax mag ñi ñu fi newal ci gox bi it El Hadj Aline Fall ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ndokkeel El Hadj Yoro Ndiaye moom it macha allah di kenn ci ñun. délégué Mamadou Ciss ñu ngi koy nuyu mu jël nuyoo joxal ñu ko waskat irbam yëpp di nuyu ñëpp ñu kenn ay may ñu ngi leen di ziar maam Diop bari mag ñi ñoom ñëpp rek yal na leen yàlla defal tawfiix Oustaz Mbang ñoom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ci teewlu yu muy teewlu yal yàlla defal ko tawfiix Oustaz Moussa Balde kazalik ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di ndokkeel. Pape Amadou Sow rajo yokkute pa wargo woon El Hadj Baye Ngala moom it ñu ngi koy ziar depuis fële incha allah yal yàlla defal ko tawfiix El Hadj Doudou Seck Liberté 4 ñu ngi koy nuyu di ko ziar Pape Amadou Sow mu ngi ziar mbokk yëpp dellu se na si jàmm comme ni ñu ko waxee rek génnoon rek nemmee ko ci yaramu mag dellu se waat na ci jàmm waaye daal mu ngi bëgg lool di ñaanal ñëpp jàmm rek nee daal. kaddu jaajeen jëf li koy weesu daal yàlla rek ko xam nee na mu ngi jiima dab loola di ko làmbaatu ngir tudd ko ci xolam yéene leen ko yéen ñëpp ci ñaan yi nga xamante ne ko koy defal ak ah, ñu mel ni moom yéeneen koy bàyyi xel jamono bu ne nee na daal ko ci dégg mu waxante moom rek dafay mel ni xame nañ lu yàgg yàgg yàgg te nee na rajo bi moo leen boole nee ne wax dëgg yàlla loolu sedd na xolom moo tax mu ngi ñaanal ñëpp mu ngi am mbégte lool ne na daal lu mu bëgg a wax rek wax dëgg yàlla dafa koy xeeb ci am mbégte lool ne rajo bi daal mooy wéttalam waaye daal masul ñàkk wéttal waaye depuis mu am rajo bi ak ñii déglu rajo bi ah daal dafa dolleeku bu baax a baax a baax a baax a baax daana am ñu muy waxtaanal waaye léegi. gën na am ñu muy waxtaaneel bu baax a baax a baax a baax daana ko daal lépp lu ko yàlla defaloon rek daana dafa dolleeku kon moo taxoon mu jël tur woowu ne rajo yokkute te alhamdulilah ah rajo bi daal mu ngi yëg ne mu ngi jëm ay jéego ci kanam kon nag góor gi yal na la yàlla defal tawfiix yal na yàlla dolli sa sutura nee na daal ku ku ku yëg ak ku yëgul foo mën a nekk rek yëgal ne moom mu ngi lay ñaanal del wax amin rek nee dal amul sen fay yàlla nak la len di bayil mu fay len te lépp rek moy mu defal len tawfiq defal len sutura fajuk aajo gu ñu nangu ñi nek ay ndaw mu ngi len di ñaanal yàlla may len fa nu gudd lol ba sut len ñom mag ñi aw fam te ngeen dese barke bi te lépp lu ngeen di yeengu rek yàlla len ci yàlla jàppale na kay mu ngi ñaax rek ginnaaw ba mu ñaaxee boppam di ñaax ñëpp rek ne fu way tollu rek ne xëye lu baax waaw fu waay toll rekk góor ga Amadou Sow nee na del xëyee lu baax yéeneen ñëpp jàmm koo gis rek fonk ko ndax doomu aadama la la nga bëggal sa bopp nanga ko bëggal na ko yéene jàmm su ko yàlla defalee sutura santale ko yàlla ci sutura si ñaanal ko mu sax nee na daal mu ngi ñaanal ñépp lu ne mel te ku nekk it na ngay am yéene boobu suñu ko defee rek inshallah yàlla borom yërmande la borom sutura la borom njéggal la su ko defee yàlla it la yonente bi xoon irhamu man fil ard yarhamukum man fi sama loolu la góor gi Amadou Sow wax yenn ko yàlla fay Pawar ga wan macha allah moom it ci lu mel noonu rek lay wax El Hadj Doudou noonu la ndax mag ñooñu it góor gi Amadou Sow wax leen di nuyu bu baax a baax Pawar ga wan El Hadj Doudou Elhadji Baye Ngalla ñu mel ni yéen nee na wax dëgg yàlla yéen moom mu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax ku mu ci dégg rek boppam lay dégg ngi bég bu baax yan leen yàlla defal tawféex di nuyu waa hôpital Abass Ndao rawatina waa réanimation di ko jox naaj bi tonton Souleymane Kandji ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ña fa nekk it ñu ngi leen di nuyu malaat yi ñu ngi leen di seet ñi ci hôpitaux yi waa Philippe Maguilène Senghor ba bàyyi da nga joxal ñu nuyoo bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax yàlla defal leen tawféex mama Saxaaba Diop yal na yàlla li ko sutura El Hadj Abdoulaye Sarr Ginte Libas Pape Mor ñoom it ñu ngi leen di ñaanal ci seen ñaan yi wax dëgg yàlla la ngeen mat yeneen koy taxawee ñëw ñëpp a ngi bég si yéen Pape Mor Abdoulaye Sarr yal na yàlla defal tawfiix bu baax. Moulay Abdoul Aziz Mbeng muqaddam ñu ngi koy nuyu bu baax El Hadj Samb Yoff Maris Demba mu ngi ñuy wax nuyoo yi toujours ziyaari Adja Rakidaaf Adja Mari Fat Baye ci ñu ngi leen di nuyu ngeen nuyu ñu dëkkandoo yëpp. Pape Assane Gueye ñu ngi koy nemmeeku ci yaram wi yal na yàlla defal ko tawfiix di nuyu Alioune Mbengue fële ci Yoff Ndenaat xëy na muy toogal ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu góor naar Seck taximaan Yoff daagu daal ñu ngi koy nuyu di nuyu ñi ci tali bi ñoom ñëpp macha allah ci ñaan yeex ci yëpp góor naar yal na la yàlla jàppale bu baax yàlla dolli sa sutura bu baax a baax a baax di nuyu njabootu El Hadj Baye nga la jël nuyoo di ko jox kolle ñu ngi koy ziar bu baax mu ziaral ñu ñëpp macha allah. Euh, bàyyi ñu kenn ñu ngi nuyu maire bi di ko ziar imaam Ousmane Faye ay ima wal ulama Aminata Sow Pikine soxna Binta Mbaye Liberté 5 El Hadj Malick Guèye ndongali soppe yi Malick Ban ngeen jotal ñu nuyoo yi ñoom ñëpp ñoom Mountaga Guèye Marème Ly Astou Ngom Padoua ñoom ñëpp di nuyu Ngoone Ngom suñu doom baay fàttewu ñu it ñaam Ngom fële ci Maris yaa Aïcha Diallo soxna a Diaw HLM ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Ndeye Binte Konte ñu ngi koy nuyu Abdou Sarr ñoom Ridis ñoom ñëpp Euh, Mbéri Gaye Abdoul Aziz Diop Kumba Mbeng ñoom ñëpp rek macha allah soppee fu ngeen nekk rek ñu ngi leen di nuyu yal na yàlla defal leen tawfiix di nuyu aussi ñi nga xam ñu ngi oote di yóbbante ay laaj ñu ngi leen di nuyu ñoom it macha allah di leen ñaanal yàlla ci topp gi ngeen di topp seen émission xam sa diini yal na yàlla taxawu leen bu baax a baax dolli seen sutura kon nag ñiy dem bay ci laayil xaraam yal leen yàlla defal tawfiix ñu ngi woon ci waajtaayu tabaski. am na ay laaj yu fi rot waaye am na yuñ ci indi woon xëj na léeg-léeg ñenn ñi yenn yi def leen di raw waaye noonu la su ko defee fàttalinte rek la ndax jaamu yàlla la gu màgg waaye lu mu màgg-màgg yit ñu xam ne sunna la bokk na ci laaj yooyu ñu jot mbokk mi day laaj ndax tabaski farata la ay dégg dafa gis daal moom euh, engouement bi mu am nit ñi solo gin ko jox daanaka ku nekk dangay ngay test waaw di wax daal tabaski tabaski yi daal macha allah waaw mu neex ko lool tamit ci ni ñu koy waajale ni ñu koy préparé waaye mu doon bëgg xam lan la atteem farata la waaw ku ko deful it lan moo lay ci fekk waaw loolu daal lay lay laaj alhamdulilah nga mën a yóbbuwaale ñu bari tabaski sunna la waaye du sunna liñ naan mu akkada mooy sunna boo xam ne dafa foor xaw naa jige farata waaye du farata waaw dafa am doole lool lislaam xem moom loo ñu ko bëggul ñu sàggane ko moo tax mu naan sunna la bu féddale ko bu foor la bu am doole kon sunna la buñ ne sunna nag def ko ngënee la ca ne waaye bàyyi ko nag doo ci am bàkkaar waaye bàyyi nga yiw bàyyi nga yiw waaye bàyyi gi nag am na foo xam ne boo ko bàyyee yiw du la ci euh, rëcc waaye daanaka mën mën nañ ko bañ tudde sax bàyyi parce que mooy da ko jekkoowul manuloo ko di nga bëgg a tabaski léeg-léeg jekkoo ko boo déggee ñu ne sunna mu akkada mooy ci ki ka man mu tabaski tabaski waaleel njabootam gis nga baat boobu ngay dégg tabaski waaye sa njaboot ndax bare yaa na njaboot kilifa gi moo leen di yóbbuwaale parce que dañuy toll foo xam ne managuñu waaw mënaguñu ay ndaw lañu xattaa sax mën nañu nekk ay mag waaye yàlla jàppandeegul ñu mën a manal seen bopp loolu kon way juru ya kilifa ya ñoo leen di gàddul loolu loolu moo tax ngay tabaski di tabaski waaleel sa njaboot kon sunna la bu foor muy sunna maam ibrahim alayhi salaatu wassalaam lu tax maam ibrahim maam ibrahim dafa nekkoon mag mu baax bëgg boroomam subhanahu wa taala du ko weccee ax dara maam ibrahim dafay sellal diggante mex boroomam maam ibrahim xamul dara lu dul wéetal suñu boroom suñu boroom bëgg ci moom lool waaye tamit bëgg ko may wéttal en même temps si wéttal gi mu bëgg ko nattuwaale ndax bu ma ko joxee wéttal lim ma cërale woon ci xolam ci ciofel ci mbeugel ci bàyyi xel ci selal ndax du am lu mu ci ciof diko jox domam jojule nako ko bu xam yàlla subhanahu wa taala wursegele ko dom waye diko ko bu xam mam ibrahim ma sha allah ku beggon njaboot la mu fonk lol dom ju ko yàlla jox di mam ismail yàlla di nattu xool fan lay toll ci moom mu ne ko na nga rendi sa doom maam Ibrahim ne sama boroom digal na ma duma ko moy nam ma ko def waaye wax doom ji Ismail ne sama boroom day jox na ma ndigal lu jëm ci yow mu ne ko moy lan nag naa la rendi ngir moom mu ne ko defal li la suñu boroom digal ndax du la digal sofaan gis nga fa yaay ja jaaroon rek fa la maam Ismail alayhi salatu wassalaam jaar ba mu ko tegee màkk ci foo xamante ne àll la kenn dëkku fa fu ñi di jaar rek la amul tur du bërëb du dara lu tax nga teg ma fii mu ne ko yàlla moo la ko digal mu ne ko waaw mu ne ko kon duñu bàyyi mu nangu dogalu yàlla waaye déggal borom këram maam Ismail loolu la feelu tey yaa abatif almat umar satajiduni incha allahu min assabirin bàyyi defal li la suñu borom digal danaa ko muñ danaa la dimbali ba santaane yàlla boobu di nga ko def danaa la dimbali ba suñu borom du la mere danaa la dimbali ci liñ la sante nu mu gën jàppande nga def ko rek ak xel mu dal tranquillité incha allah danaa ko def moo tax mu ne ko satajiduni incha allahu min assabirin ci gàttal mu nam ma ko def dem ba def la ko yàlla digal waye yàlla ba mu ba dernier moment mu jël pak ba di dawal ci put gi yàlla ne wa fadaynaahu bi zibxin azim ma remplacer ko gàtt bu bax muy kuy yëkki mam Ismaïl ron fa kharma mu dag ba mu xeppe bët ya rek la gis ne mom kat xar la rendi mu ne allahu akbar yàlla magana loolu mooy sunna si maam Ibrahim yonente bi saa salaam ñëw fiddali loolu ñu koy roye yonente bi waaye di fàttaliku maam Ibrahim kon sunna la waaye bu ko kon ku ko man daf la war nga tabaski taba yéene wale sa njaboot ni mu la waree it njaboot gi ku ci man tamit daf koy war moo xam boroom kër gi la ku góor ki wala boroom kër gu jigéen ki la wala njaboot ko si man rek daf la kon tabaski mu ngi noonu bu dee nag ñeneen ñoo xamante ne xar jàppandiwul ci ñoom ndax xar moo ci gën béy nag gëléem xar jàppandewul te fa ngeen nekk nag moo fa gën a yomb loolu it si laaj yi la macha allah mbokk mi ko laaj am ay mbokkam yu nekk fële ci bitim réew ci marok ñoom ñu ne xar dafa cher foofu te jënd nag moo fa gën a yomb su ko defee Euh, ñoom bu ma juumul ñett lañ xaw ma ñeent ñu ne bon nañu nañu cotiser ñoom pour jënd seen xar jënd seen nag alhamdulilah loolu lislaam may na ko kon ay nit mën nañu boole ba ci juróom ñu boole li ñu am jënd ko nag ndax mooy gën a yomb ci ñoom ndax xar amul parce que li ñu am kenn ku ne doo ci man am xar kon ñu boole jënd nag kon kooku jaadu na ci tabaski kon dëkk euh, lislaam noonu la bu dee ci xar nag kenn du ko cotiser moom kenn ku ne rek daf lay war waaw bu ki boo amul rek wàcc na la soo amul wàcc na la wala bés bu njëkk bi boo ko ci amul nga dàkk ko bés bu ñaareel bu ñaareel bi boo ko amul nga dàkk ko bu ñetteel bi defe naa ne bés bu njëkk bi xar yi lu ñu cher cher bu dee des na fi bu dee bu dee des na fi ñaareelu fan ba dana gën a yomb ñetteelu fan ba dana gën a yombaat bu boobaa mën nga si tabaski waaye bu yàlla def jàppandiwul nag nga xam ne wàcc na la kon loolu daal ci gàttal nga xam ko bokk na ci yooyu nag nga ko bépp ayib bu am ci gàtt bi na nekk loo xamante ne daal du am benn ayib na nga ci bàyyi xel bu baax bokk na ci laaj yooyu yu fi jotit kii dafay laaj moom ndax euh, moo soxnaam ñoo bokk daal nekk euh, ku si nekk yaa ngi am looy jot maanaa am nga ndax ñoom mën nañu ku nekk joxe ñu jënd seen tabaski maanaam mu nekk benn gàtt waaw ala kulli bu fekkee ñoom ñaar ku ne dangay jot dara yaa ngi yëngatu yàlla la mu lay wër wërsëgale mën nga ci am tabaski kon ku nekk daf la war kon tabaski du góor du jigéen waaye ku yàlla def nga man rekk daf la war mu nekk nag sunn mu àkkada bu fekkee ndëg ñoom ñaar duñ man kenn ki bu jëndee mën na yóbbuwaale keneen mooy borom kër gi waaye boroom kër gi moom bu fekkente ne manul soxna si mën na ko dimmali ci li mu yor mu tabaski yóbbuwaale njaboot bi moom it mu tabaski waaw waaye pour ñoom ñaar ñu boole bu dee ci xar si mazhabu imam malik kooku déedéet waaw kon daal ki amul wàcc na la waaye bu fekkee boroom kër gi amul soxna si bu amee moom na na rendi tabaskeem yéene waale ci boroom këram parce que sunna la te boroom këram amul mu yéene waale ko ci yéene waale ci njaboot gi waaw kon daal ki yàlla jàppandil ci moom mu mën a yóbbuwaale aw nit rek da leen di yóbbuwaale jërëjëf bokk na ci laaj yooyu ñu fi jotit kii dafay wax ne am na koo xamante ne mën na ko dimbali jënd xar jox ko wala mu jox ko xaalis ki ngay dimbali pour tabaski loo ko ci dimbalee rek maanaam ngir tabaski la baax na alaakuli kulli xaalin ah bokkul koo xamante ne xëy na di nga ne am na tabaski waaye naa ko dimbalee mu doll la koo ci tabaski bi kooku da koy jox xaalis parce que dina am xar xaj na waaye waaye bu fekkee da nga koy jëndal nag boo ko jëndalee falilahi alhamdu moo gën wala nga jox ko njëg goo xamante ne bu demee dina ci mën a am xar ah lu mu ci ko mu ngi dépendre sa si li la yàlla dénk nga man ko ko dimbalee si li la yàlla dénk nga man ko ko dimbalee waaw bu fekkente ne nag yow da ngay tabaski nga rendi sa gàtt moo gën boo ko rendee bu pare nga saraxe maanaam bul ne man tabaski war na ma mais comme man rek la wala comme new ma fi nañ ma joxeel xaalis bi baax na waaye bi gën mooy ñu rendi gàtt bi dañ la rendil sa gàtt ñu ne bii sa tabaski la même boo fi newulee bu ñu paree gàtt boobu lañu jël ko saraxel la ko même boo ci boole xaalis ñañ koy jox ñu dimbale koo ko it baax na kon gis nga mbokk yi boo ñëwee foofu da ngay gis lislaam bu yonent bi di wax ne na ngeen ci xéewlu na ngeen ci jenc na ngeen ci dimbale dimbalinte def ci baax parce que yàlla day xam na ne ñëpp du mooy jàppandi ci ñoom ñu mën ko def am na ñoo xamante ni du jàppandi. ñu mel noonu mu ne na leen dimbali na leen dimbali ndimbal moomu nag ndimbal moomu nag ñu bañ ko jël def ko mu nekk farata ñu bañ jël ndimbal mi def ko mu nekk farata dimbalinte ci ay jullit lu war la lu war la nga jekk ko man dimbali sa mbokk waxee bu fekkente ne si événement tabaski la ay sunna mu akkada la wala yu ni mel dimbal mi nekkul farata maanaam boo ko déggee foofu mooy que ne waajib la c'est obligatoire daf ko war a def te léeg-léeg même nga jël nit wékk ko ko mu nekk fitna ci moom kan moo la wax ne amul ñeneen ñu ko gën a jege al aw la ñu ko gën jige mu war leen taxawu ci bés boobule amaana du kenn du ñaar du ñett mu ngi am xel mu jaxasoo gëlëm na mu ngi naan ku ne lan laa war a jëflanteex moom ba mu yëg ne moom bés bi si la bokk nan laa war a taxawoo kii ak njabootam kii sama jigéen la kii sama mag la kii sama rakk la kii sama kii sama waaye bu fekkee yow yàlla daf la daf la boole ak moom ak nu mu la boolee moom ah bul ko sas ndax yàlla bëggul kuy fitnaal jullit yow kay ñaanal ko yàlla rek bu yàlla defee mu am lu yaatu xelam daj la mu baaxe la ci sant ko ñaanal ko gërëm ko ci loolu santale ko yàlla waaye bul def ñaari fan yu ne rek nga fàttaliku ah mbir mi da jege na de ba tey gisaguma dara ah mbir mi da jege na de xale yi nangam mbir mi de jege na bés suba gi ngoon gi ëllëg ginnaaw ëllëg di ko jàppoonoon ba téléphone bi dina mujj sax léeg-léeg du la bëgg fekk téléphone bi daf ko daf ko sonal maanaam bañu la wuyu waaye ni ko bëgg laaje moo tegginewul utlubul xawaaija bi izzati nafs la yeneen laaj dara laaj ko ah dignité maanaa daal bul soofantal sa bopp mais bul soofantal sa bopp aussi bul fitnal nit ki bul ko poñe rek mu mel ni bor la ci moom daf ko war a def waaw moo ko war a def yàlla may na ko waaw yàlla may na ko naam waaye est ce que li ko yàlla may waxtu woowu jàppandi na pour mu mën a daj loolu tamit lu jar seet la est-ce que amul ay waxtu yo xamantene ne daana la jox lu upp tabaski est-ce que amo won fo tollu ci ay situation mu fekkale fa taxawu ba nga ne mara day tali waye kon nak événement bi nga xamantene sunna la wax deug yàlla bu fekkon tane sax ku am xel la daanaka sax dang koy xawa éviter mom dang koy xawa éviter parce que sa yu la déggee rek xelam day dem ci yow te bëggu la lesal gannaaw ko nit ñenn ñi nañuy dimbali ñeneen ñi kon gis nga ndimbal du ci joxe rek waaye may nit ki jàmm may nit ki enfiya dimbali ko ci xel mu dal dana ci baax kooku ndimbal la ba moom du xelaat waaye bu téléphone bi ne kër rek mu ngi seet kan moo ma oo pourtant amalul kenn bor de pourtant jëlul alalu kenn de pourtant digul kenn dig bu tooy ne dinaa def nangam de waaye wëllëre waaye ak mbokk waaye bëggam def lu baax daana ko def waaye bu boobaa bu événement yi mel nii ñëwee kon nag nañu ànda sago kon nag mbokk mi indi laaj boobu it jëf kon nit ki lay dimbali bàyyi ko rek ak sagoom jarul di fàttali xanaa mu ne la woon soo toogee ba bés sangam soo toogee ba waxtu sàngam day nag ma fàttali ndax yitte yi ñoo bari ndax soxla yi ñoo bari waaye boo toogee ba bés sangam nang ma fàttali ah bu boobaa man nga ko fàttali ndax loolu la la waxoon waaye wax nga nit mu ne la ah baax na maa ngi ci waaw baax na yàlla baax na waaw baax na yàlla na yàlla dooli sutur ci wax yu demee noonu su ko defee yemal foofa rek di déglu wóor na ne moom xelam du la fàtte waaye est-ce que mu nga fa est-ce que amul soxla yu ko fa jiitu maanaa soxla yu ko fa jiitu yu gën a tar yooyu est-ce que amul ku ñu war a taxawu taxawu goo xamante ne taxawu ko moo ëpp doole tabaski est-ce que est-ce que boo ko jàppee boo ko jàppee kon bul ko fitnaal bul ko fitnaal jamono bu nekk nga ne kër te bu jëlul mu jege la ngay mujj wax mooy ku ko woo du la jël dama ko oo nanguuma wuyu dama ko oo nangam kooku rafetul kon nañu dimbali wante nañu dimbalinte ci dal nañu dimbalante ci bëñ fitnaal doomu aadama tabaski la naam dañu war a bégal njaboot gi waaye ndet ku amul rekk ngal la waay wàcc na la noppalal sa bopp ndax lislaam noppal na la ndax laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha sa yajcalu llahu bacda usrin yusra la alquran wax kon tey bu baaxul ëllëg dana baax niki noonu ba ci kër yi foog nga jox ma mbaadu baax foog foog nangam foog nangam samay nawle dañu xotti damay xotti dañu sangnam damay nangam dañu nangam damay nangam xattaa la waaja doon wax sax ndaw si ne ah na nga fi indi xar mu am ay bëjjën waaw ah, parce que sama sama nawle yi yu mel noonu lañ leen di yeewal fitna taxaw kon yooyu yëpp boo ko boolee war nga xam jaamu yàlla moo tax xam sa diini dafa am solo te xam lan mooy farata xam lan mooy sunna sunna mu akkada xam lan mooy sunna yi nga xamante ne boo ko bàyyee dara du la ci fekk am na yeneeni farata yuy ñëw kon yooyu dafa jar bàyyi xel te ngallawaay ku ñu ci jox dara moo xam sa borom kër la moo xam sa càmmeñ la lu mu la mën dimbalee na nga ko doyloo way jur wi moo xam ku góor ki wala ku jigéen ki lu si sa doom kay liggéey bul ne fonctionnaire la rekk am na ko waaye am na yeneen yu ko war ndax bu laa ëllëg facture courant day ñëw facture ndoxam ñëw xëj na téléphone baa ngi fi xëj na yeneen charge yi ñu ngi fi wàllu faju mi mu ngi fii ax yeneen ax yeneen yoo xamante ne nii maar day taali kon dëkk yooyu dafa jar di bàyyi xel kon lu mu yaakaar ne lii day yéene naa la lu ko ëpp waaye lii moo jàppandi kon jàppal ci lii kon nag bu ñu leen xeebal dara nañu leen ñaanal yàlla doon leen barke dolli leen sutura te kun ci dimbali ku la mën a dimbali bul ko xeebal ndimbalam buy nit yëkkati woon même junne jox la ko wallahi am na ñoo xam ne boo leen joxoon ñaari téeméer duñu ko gëmee yow ñu jox la junni ci misaal rek laa waxe kon ku ñu ci jox dara na ko doyloo na nga ko doyloo na ñaanal ki la ko jox ndax li mu la jox foru ko amaana mënoon na ko def faneen kon nag doylu gi def ci am solo waaye bañ fitnaal kenn kon nag yooyu ci tabaski ñu bàyyi ci xel bu baax ku góor ki war na ko ku jigéen ki war na ko doom ji man tabaski war na ko ku ne rek tabaski daf la war bokk na ci laaj yi su ngeen tabaskee ba noppi maanaam rey ngeen seen xar ginnaaw bu ñu ko rendee ñi nga xamante ni way jigéen ñaale lañ tabaski wuñu ñu teel leen a bàyyi xel ay jigéen ñaale lañ waaye tabaski wuñu ñu teel leen bàyyi xel حتى ميم ني تاباسكي ني باي لين خيل ناخ ليك ليك سين لوخو دو جوت سين غيناو كون دال تاباسكي سنة لا بو ام سولو لول واي مو باري اي نجانغات غيسنا موتاس ديني توزور دافا لاج خام ياغي يعني نان دام وار تاباسكي مو جارال دوني مي اسك خام نغا سببو تاباسكي بي est-ce que bàyyi nga xel yan jàngat lañ ci war jàngat ba mu man la jariñ seetal ci ñett ñooñu ko séqoon ci maam ibrahim maam ismail maam hajara ku ne ci ñun taxaw nga taxawaay boobule moo xam bàyyi nga yaay boroom kër gi walla yaay nga yaay soxna si walla doom nga ci kër gi ku si ne rek am nga ñett ñiy taxaw taxawaay boo ci taxaw ñoom ñett ku ci ne nangu nga sa dogalu baroom kon li jiitu ci ñun mooy ñu nangu dogalu baroom bi lu yàlla dogal ci yow jamono bu ne rek gërëme ko yàlla la in shakartum la azidannakum la yàlla wax su ngeen santee rek ma dolli leen su ngeen santee ma dolli leen kon sant yàlla ci dogalam ah ki ma yàlla booleel day waxtu wii de yi daana fekk lépp toppatoo na ko waaye nag jamono dab na ko beñalu woon dara fu ma war a féete rek féetali ma fa sagal na ma guddi sagal na ma bëccëg bëggul dara lu ma naxari bëggul dara lu ma jax waaye tey xam naa ne njaboot dab na ko xam naa ne tey nattu dal na ko su ko defee nag naa ko muñal waaye naa ko muñalit naa koy dëfal naa koy fattali xattaa man soxna si naa koy fàttali ne man am naa taxaw bu mu war a taxawee ci wetam nangu dogalu yàlla waaye taxaw taxawaayu soxna taxaw taxawaayu yaay taxaw taxawaayu jigéen jàppale sa càmmañ jàppale sa boroom kër jàppale sa doom yow boroom kër gi nga nangu dogalu yàlla xam na yàlla moo la nattoo njaboot gi jël ay takaalif mooy ay wareef teg ko ci sa kaw nga war leen yir nga war leen sagal nga war leen yërëm nga war leen gunge fépp fu ñu war a jàqare bu ñu geesoo gis la yow nga fajal leen seen njàqare lu naroon métti ci ñoom nga woyofal ko ba dootuñu yëg méttit lu nekkoon njàqare mettit nga fexe ba teggin leen loolu mu mujjadoo ka bànneex ci ñoom fu ñu nar a jàqarek seen xel na yar ci yow ñu dal nga taxaw taxawaayu wéy ci ñoom taxaw taxawaayu yërmande taxaw taxawaayu boroom kër taxaw taxawaayu responsable li la yàlla dénk muy wërsëgu njaboot gi fexeel ba nga bégal ci njaboot gi ndax amoo dërëm booy def faneen fu gënal yàlla fudul fi nga def ci sa njaboot amul dërëm booy def faneen fu gënal yàlla lu dul li nga def ci sa njaboot moo gën kon ku defalul sa njaboot looy defal yàlla mu saf ko ku defalul sa njaboot loo defal yàlla du ko saf kon bu la yàlla dimbalee sutural la waxuma nga am lu ne gàññe de waaye mu sutural la fexeel ba sutura boobu suturaal ci ñi la yàlla booleel kon tabaski dafa bari ay jàngat bu ñu ko jël rekk yenu ko ne tay la mbaa dara dootul baax fitna yëpp dama ko war a yee dara warul manqué dara dara dara nañ ci àndax dal ànda see sakku boroom kër yi it góor góorlu ci njaboot gi waslu ci àq xam na ndénkaane yàlla la ñu tarbiyu leen defal leen lu ñu man si li la yàlla dénk nga bégal leen bul iññaane sa bopp sa bopp mooy sa njaboot kon loo man si sa njaboot def ko alquran nee ni kuulu washrabu waaye wala tusrifu ndax inna allaha la yuhibbu inna almubazirina kanu ixwana alchayatin yàqakat yi ñooñu mbokki cheytaane lañ yàlla bëggul yàq waaye nag lekk leen naan leen bu leen yàq jox leen li ñu soxla seen aajo kon tabaski sunna la am ay wareef yi ci am nga war taxawu njaboot gi bokk na ci at tawsia alal iyaal nga bégal njaboot gi ci feet boobule mooy maa ngi sant yàlla ci li mu ma wërsëgale njaboot maa ngi sant yàlla en même temps ci bàyyi ma yi mu moo dimbale ñu mën leen jëfandikoo kon bésu sant yàlla la bisu feet la ngir jullit yi bisu mbégte la kon nag nañu bég nañu feetu waaye nag ñu àndax dal buñ ci yàq bu fitna am doom yi def noonu kon ku ne bu defee noonu yaakaar naa ne yàlla dana gën a dolli naataange dana gën a dolli xéewal ci nattu yi ñu koy tegoo waaye ànd si ak philosophie ànd ci ax dal bañ a yee fitna ci dara su ko defee mel ni waxtu wi ñuy nodde jot na الحمد لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المتاح كما سيدنا محمد ني إلى سجد سيك ما شاء الله دي نيو مبك يف نيو نعم، من نك يالنا يالا دف نيب توفيق تبسكي بي يالنا يالا دف نيو إسيسي أجام يالا دي ملي نيب با لنج بك يب يالا دف نيو دفنا من نيو بلين بيرك وفقل سي 88 628 10 95 نخ خمنا نكي تايبي دي yàgg lool bu 5 heures jotee rek ñu yëkki jotaay bi incha allah ci 88 628 10 95 mooy gu mu jokkoo gi su ko defee it euh, yal yàlla defal ñëpp tawfiix lu ñu jàmmoo yàlla ci bés bi ndax jaamu yàlla la ndax sant yàlla la waaye bëggal njaboot gi yaatal leen kon lu ñu ci man ci njaboot rek nañu ko def ku ku yàlla man loo nga mën a dimbali doom aadama yi fu ñu mën a nekk rek nga dimbali leen te yàlla tax waaw nga dimbali leen te yàlla tax waaw nga ne kat naa ci jaamoo yàlla ndax mbégte moo def ci xolu doomu aadama yàlla nee na kooku kenn amul sa fay waaw képp ku nekk ci soxlay jaam yi rek yàlla nee na man maay nekk ci sa soxla ndax jaam yi samay jaam lañ kon ku ci taxaw rekk dafa mel ni man nga jaayanteel kon nag su ko defee ñi yàlla dénk nga am benn borus rekk nga bàyyi xel sa mbokk moo xam mbokk la wëllëre am di jàmm jege ñaale la su ko defee daal di ñaanal yàlla mu dolli sutura bu baax a baax ci réew mi kon boo ko gisee maam Ismaayil alayhi salaatu wassalaam déggal na woy juróom ndaw ñi it ba événement bi jotee ñu xool xissatu maam Ismaayil alayhi wassalaam ci boo bëggee barke boo bëggee sutura nga xool ci maam Ismaayil aleyhi wassalaam niki noonu bu dee ci soxna yi ci maam Haajara aleyhi salaam waaye gis nga ñey dem baytulaahil xaraam di sànni seen jamra loolu lay symboliser mooy fexe génn seytaane ci ñoom fexe ba du leen tarxiisloo motax tax sori lo soriloo seen bopp di sànni jamara mu am lu muy symboliser moy ma ngi génn seytaane ci man mo xam seytaane reey la mo xam seytaane ngistal la mo xam seytaane kiñaan la mo xam seytaane buy dox sa digënté sa borom wala muy dox sa digënté doomu aadama yi pour féewale seytaane yooyu nga fexe ba soreyal leen seen bopp génne leen ci seen loolu mooy nga di leen sànni jamaraat yooyu la kon seytaan dafa bari doole moo tax doomu aadama yu war ci lu war làqu ci yàlla subhaanahu wa taala bañ a yee fitna kuy yee fitna jëmale ci yow sax nga wan ko ginnaaw la suñu yaay Mariam waxoon ne إني نذرت للرحمن سوما فلن أكلم اليوم إنسيا أوكو تشاهان دال دوما تشاوخ باي لين دك نيوم ني واخ باي لين دك نيوم ني جيف كون يويو داي ام فان يو موني فاتلي وذكرهم بايام الله ني كي دي خامنا ايفينمان بي كات لي موكو ورالون خام ليكو ورال دا نالا ديمبالي با دو تي ديف لو تي بوكول xam li waral tabaski dana la dimbali ba doo si saalit mooy fexe ba lu ñor ah lu ñorul nga bëgg boole yépp ne ala kulli xaalin kat lépp dana yemb lépp dana sotti fitnal sa bopp fitnal ñi nga newal loolu baaxul kon nag doylu alqanaatu kanzun la yafnaa la yenente bi wax xam ne sunna la ku ko man war na la waaye ku ko mënul wàcc na la ala kulli xaalin waaw wàcc na su ko defee jigéen ñi roy ci maam Hajara ci déggal boroom këram waaye ku si amul boroom kër mooy déggal say wayjur kala yàlla booleel moo xam sa mag la moo la yilif moo la yor nga déggal leen ndax wa qadaa rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana nga fexe ba tarbiyu len fexe beugel len fexe di yem ci sen loxo waaw beña beña beña beña beugé lol waaw dañ nan nitu ba lakalé bu fet di ñé rek nga ne ala kulli halin tous les moyens sont bons dédé du noonu da ngay xol yan moyen mo bax yi baax nga tegu ci yoon yàlla dimmali la soo tëddee rek di nga mën a féex di nga mën nelaw soxna si Hajara doyloo na borom bi subhanahu wa nangu dogalam waaye déggal borom këram doyloo na li li ko yàlla jox mu teg ko foo xam ne àll ndox ma bu la yàgg jeex na moo waral samsam gis nga déggal borom këram ba ndox ma ba muy balla la mu nakaan dalal zam zam loolu boo jubbooloo sa borom boo déggalul sa borom kër yàlla du la ko man may waaw waaye gis nga soxna si lay tax mu mën déggal borom këram li ma doon wax sànq ci borom kër gi fexe na ba yir na njabootam teg na leen fi mu leen war a teg waaw teg na leen fi mu leen war a teg waaw kon yooyu yëpp dafay tax ku si ne xam li la war kon ci ñett ñu nga xamante ne yàlla ci la defe événement bi xew maam Ibrahim maam Ismail maam Hajara ku si nekk jàngat ci te li ma wax sànq mooy ku ci ne ñett ñi mënoo ci génn imma bàyyi nga imma doom nga imma soxna nga kenn mënu ci génn kon ñett ñooñu am na ci fooy taxaw kon taxawaayu kookale nga taxaw noona ngay fexe na mu dunde woon événement bi nga dunde ko mais li ci jiitu mooy nangul borom bi subhanahu wa kon tabaski ñuy dëgmal ma na ci yàlla yóbbale jàmm nangul ñu nangul képp koo xamante ne def nga ko yàlla yërmandeem yaatu na yàlla nangul yàlla barkeelal ñu ndax lu yàlla barkeel rekk wax dëgg yàlla lépp dina baax kon nag defe naa ne cinq heures ngi jot te dañ ne woon bu jotee rek daa am yitte bu ñu njat te daanaka luñ war a fàttali moom du jeex am na ay mbokk yu fi laaj ay laaj incha allah yooyu dinañ ci ñëw comme tey dañu doon tontu ci laaji tabaski ji bu fekkee fàttewu ñu dara ci yii ñu yónnee woon waaw daal wax nañ ci tabaski lal kan la war ndax ki war na ko def wala waru ko def yooyu defe naa ay laaj la fi woon waaw donc bi passé tontu woon nañ ci wàllu julli gi te incha allah dinañ ci ñëwaat ci bi di ñëw bu soob yàlla ci julli ji ñëpp la war wala deet nan lañ koy defee incha allah su ko defee waxtu julli góor gi ñu ngi koy jaajëfalaat di ko ndokkeel góor gi amadou sow rajo di ko ñaanal yàlla di nuyu secrétaire Dieynaba maire Sow maa ngi lay ziar bu baax a baax njaboot gi bàyyiwuñu kenn wax dëgg yàlla kenn ñi ci réew mi ñi ci biti ñëpp yal na yàlla jàppale leen fajar gi mu ngi si 5h39 fajar gi mu ngi si 5h39 ñu taxawal julli suba 5h54 fajar gi mooy salaatu xayra mina nawmi 5h39 taxawal julli suba 5 cinquante 54 tisbaar gi 2 heures et quart takkusaan 17 heures timis gi 19 heures 45 19 heures 45 su ko defee ñoo xam ne bon ah tey incha allah danañu seeni weer wi muy 29 jours incha allah ñu bàyyi ci xel bu baax yal nañ ci yàlla defal tawfiix yal nañ ci yàlla defal tawfiix ko defee mën a séenu rekk séenu loolu la fi mag ñi bàyyi woon de mën a yéeg ci kaw nga yéeg borom bët yu neex yi naka góor gi di waxe <laughs> yal na ko yàlla fayal waaw ko defee loolu moo masaan xew kii naan mu ngi nii anamu mu ngi nii xoolal ci niir wi si suuf xoolal nii xoolal fële ba nga ne ah xakay ah, mu ngi nii waaw loolu moo daan xew waaw su ko defee rek terewul ñu xarala yu bees yi dina tax sént bi ñu gën a yaakaar maanaam daal li ñu wax ne asamaan si dina leer yaakaar nañ ne bu ñu xoolee war na fi ne bu fekkee day lëndëmit wàllu xarala mën nañu wax ne ah tey de mën na fi ne waaye du neex a gis ndax day lëndëm waaye daal bu fekkee amuñu dëppoo ci dara daal di séenu ba gis ko rek kon nag yal yàlla defal ñëpp tawféex di dox daje ñëpp aljuma bi di ñëw incha allah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi